jooytu suñu naqar wu metti wu tar woo xam ne nii dañoo dal at ak lu topp ci wàllu ndox ca Sëriñ Tuubaa ba muy ñaan di ñaan suñ borom lam njëkk a ñaan ci dëkk bi mooy fu ñuy jànge alquran ak ndox mi nu muy walangaane ak fu ñuy jaamoo yàlla yàlla sëriñ Alaaji Baara mi nga xam ne nii moom yal na yàlla dolli leeram mu fonk sëriñ Afiya Buso ba fekk fi nga xam ne mooy fii na di barabu sëñ aafi busa bi ñi ñàkk ko ndox lool mu walanteeru ba def fi forage forage bañ ko fiy def saam mi nga xam ne mooy njëkk a nekk hydraulique ba mu taxawee dafa xool forage bi daan ne forage bii de fii ñu ko épinglante mën naa daw douze kilomètres yoo xam ne dara du ci manqué ndox nun ñi nga xam ne ñoo taxoon ñi samp forage bi ñi defal ñu sabotage bu méttee méttee métti boo xam ne nii toog nañ at ak lu topp mënuñoo fexe ba am ndox fu ne ñu jaaxle fa fu ne ñu jaar fa tey jii ñetti fan yii lañu dem ne nañ gas wan wi bañ demee gas wan bi dañoo dikk fekk ñu fermi wan bi ba nga xam ne nii technicien bi ba mu koy defar mën ta fexe ba ubbi ko ndax tëjaay gu yàgg koo xam ne yàgg na dañoo mujj dagg tiwo yi doog di sensé wan bi ñu toog atum yàlla moo xam ne mënuñoo sangu mënuñoo naan mënuñoo def dara gone sax yi nga xam ne dañoo mujj judd suñ séenee robinet bi xel sax dañoo ñoom dañuy jàpp ne dañoo jommi ndax ka ñàkk xam ndox ca lépp doomu aadama teg ñu ko ma yaakaar ne dëkk sëriñ Tuubaa bii ku fi nekk da ngaa war a def la nga xam ne moo dëppoog li dëkk bi laaj waaye waroo def day yëfi coxar yu métti yi lii day ñii du julli sax xalaatuñ ko waxal naa ku ne naan astadu an laa ilaaha illallah ma jàpp ne jëmm ji kat ko def day jàpp naa ne ñoom yaakaaruñ Sëriñ Tuubaa yaakaaruñ yàlla yaakaaruñ yonent bi ca bëgguñu lu baax it yéefar sax a leen tane lii daal moo tax ñuy déclare di jooytu di ñaan lillahi wa rasuli ngir yàlla ak jëmmi Sëriñ Tuubaa nañ ñu bàyyil suñ forage bii amuñu lu dul ndox mi lislaam cet la bëgg ci ndox lañ mën a amee cet ci lañ mën a amee lépp sabotage yi ñuy fan weere forage ak ñett nekk ci dëkk bi te mënuñoo fexe fexe ba dëkk bi am ndox te nii mu amee fii ni la amee ci quartier yëpp ca forage yi mat nañ sëkk daaru marnaan gi benn forage moo fi nekkoon Touba gépp dana am ndox ba wàll Mbàkke léegi fanweeri forage ak ñett ci Touba gii ca aw mar di ñu bëgg rey te lee ñu koy teg lépp di doomu aadama yi rek ngir saboote su fekkee dañoo bëgg a fayloo ndox loolu sëñ Touba jëlee ne ko fi mënuñoo fexe fexe ba doomu aadama yi fay ndox mi ndax sëñ Touba ko fi def mënuñu ko lañ bëgg daal war nañ ñu koo wax sabotage bi metti na lool ñu ngi koy distingué nag ba fa suñu kaddu yi àgg di ko wax président de la république di ko wax premier ministre am di ko wax ministre de hydraulique di ko jooytu ki nga xam ne moom lañ jox ndoxum Touba mi itam mu delloo góorgóorlu bu baax a baax cay vérifier waaye suñ ko téléphoné wax ko ca saafara wu dara jëriñu ko it daanaka dénk biñ ko dénk amul benn njariñ moom sëñ Moustapha Dieng moomu gisuñu benn effort bu mu defal nag ragaluñ ko dëgg dong la ñuy wax ndax ba tuyau bi ba mu dalee fatt ba nëga ni fuñ toll wax nañ ko téléphone dem nañ baagante nañ bay bëgg a dee waaye defuñ ci benn effort ñoo mujj nun wut suñuy premier wut suñuy gaskat ñu gasal ñu bañ turwe lii ndox mi doog di ñëw. da tax ñu def ni dañoo tëj wan bi nun ñoo jël suñu 60 mu départ ci ca forage ba ñu def benn wan pële bu mag. Euh, indi ko ba fii ci barabu sëñ Afi Bousso bañ demee xool panda un an mënuñoo fexe ba kii ba ci fan yi mujj yi ñu ne nañ dem fa nga xam ne fa la wan ba nekkoon ñu xool ko bañ demee wuti gaskat mu gas ba mu gasee ba àggal ci lañ xool gis ñu tëj wan bi loolu moo tax. waaw fi mu toll tiwo yi moo feesagul waaye quartier yi ñi ngi tàmbalee am ndox fu mel ne kër Adja Mari Fay ma ngay xelli fu mel ne kër sëñ Abdoulahat Bousso ma ngay xelli kër sëñ As Guèye ma ngay tàmbalee xelli ca su tiwa yi feesee danañ xelli. sonnoon nañu lool ma dëgg yàlla te ndox moom moom moo yor lépp waaw daawuñu woon fóot daawuñu woon togg daawuñu woon def def def dara ndax ñàkkum ndox te ndox moom moo yor lépp sonnoon nañu torop fii moom daaru ma naan moom dëgg yàlla nu muy ñàkk ndox moom dafa bari bari na torop torop torop torop na yàlla jëli sëñ Tuubaa billaahi nu muy ñàkk ndox moom dafa bari lool te ndox ndox moom moom moo yor lépp waaw togg loxo yi lépp daal ñu dem sax ba jéggi tali sax daan fa roote wër na yàlla jéggi tali bi di roote bu ñu yenn koo benn paanu ndox di bëgg di bëgg a dee suñu bopp yi metti waa ñu feebar waa ñu jënd ndox ndox mu neex seetal na ni nekk fii ñu jënd wër na yàlla billaay